Assane jóge seen petit gàlle c'est une très grande question donc euh, ñu ñëw ci euh, la xew ca Fuuta euh, laataa ñu ñëw ci mbiri Pape Cheikh ak Viviane dañuy dem ca la xew ca Fuuta mu doon nag image yu daw yaram feuse image yu metti kii ngeen di gis ci vidéo bi handicap la mhm. handicapé la dafa am handicap mënul wax mënul yëngu mënul def dara fi mu tëdd mënu fa jële boppam ñu violé ko ba mu jële ci ëmb Euh, mu doon nag mbir mu doy waar mbir ma nag kenn xamul ba léegi kan moo ko def. Mhm. Euh, nañ dem seetaani élément bi te ñëwaat. Euh, kan moo tëddee ba ëmbal xale bu jigéen bi nga xam ne àndul ak xelam mënta wax te mënalul boppam dara fi mu tëdd fa lay def léppam bi la jëf ju ñaaw mu ngi amee ca quartier moderne 3 ca Ourossogui yaayu xale bi di may rem si jaaxle na te waaru na ndaxte xamul naka la góor mën a tiimee doom ji bay àgg ci moom. instant bi de dama jaaxle. sama doom nga xam ne handicapé la xamul dara musul dog mosul toog musul wax mu ngi tedd fu mu war a tedd kër gi xale yi dong ñoo fi nekk si la loolu lañ ko violé mu jël si ëmb mënul wax kan la parce que mënul wax mënul wax mënul wax kan la xamuñu kan la tamit. xale bu jigéen bi tudd Binta bi mu juddoo la ko laago bi dal du wax. du dégg teg sa ay cëram dañoo bañ ba tax na bi yaayam di xam ni dafa ëmb boobu toll na si juróomi weer. xaw ma nag daa ëmb damaa gis rek muy wàcc su ma ko mayee lekk muy wàcc biir bi di rëy ma wax ko papam kii de biir bi dina mu ngi rëy te su ma ko mayee lekk day wàcc léegi nag papam nee yóbbu ko hôpital ñu yóbbu ko hôpital mu def écho ñu ne ma dafa ëmb mu ngi mu ngi cinq weer cinq mois. waaw si laa jaaxle nag kan ma war a def jëf mu ñaaw bi. yaay ji nag jamono ji bëgg na yoon dimbali ko ba mu xam ki jëf jëf ju ñaaw ji waaye it bëgg na ko ko taxawu. man bëgg kay fekkee mun nañ ma jàppale ci doom ji parce que doom ji dana soxla meew dana soxla ay kuus yaay ji tamit. dana sox soxla buy dem hôpital ak kuusam moom tamit dañ koy kuus parce mënul dara waaw ak lekkam lépp ku ñu mën a jàppale rek yàlla tax waaw waaw waaw waaw vidéo bu bu bu doy waar ah. Mhm. Euh, Feuze xanaa lii moom yaa ngi koy doog a dégg de. aaxiru ah, zaman la. putain koo xam ne fi mu tëdd lay tëdd Feuze dem sax ba dañu koy couche. Mhm. ñu baal ci kàddu gi. kan moo ko fa war a fekk violé ko man nag man sama xel mu gàtt man jàpp naa ni ki ko def moom génnut kër gi moom. bu fekkoon ndaw si day génn sax di dem ñu mën ne peut-être ki ko def dafa génn ci kër gi. man su ma gisul woon doom ji nee naa dama naan nañ xool ba xam est ay rab parce que comme nee na rek fu judduwaale des fois nga gis ko tëdd jékki-jékki yor ay rab biir ba di newee ay rab di ko newee. dëgg la mhm. mais comme gis naa doom ji moom mënatuma wax ne ay rab. déedéet doom jaa ngi noonu tëdd ci wetam. waaw looloo tax nag. ma am taxaw seetlu tuuti rek. parce que dégg ci wax yaay ji mu ne moom dañ koy kuus yaay ji. Mhm. comme xale bi mënul wax mënul def dara li nga wax ne ki ko ko def génnul kër gi kon ñoom mën nañoo bañ a sori. ci xam mhm. ko def bu ñu xoolee seen kër ñaata góor a fa nekk. Mhm. ak ñëw kan kana kan fay dugg. Mhm. waaye yaay ji tamit am na foo xam ne moom dinaa ko fa blâmer ana moom fan la nekkoon bi ñuy def xale bi. waaw surtout. parce que koo xam ne nag mënul dox mënul wax lépp yaa ko koy defal. jàpp naa ne chaque dix minutes xanaa war nga ñëw xool ba xam war na xiif wala couche bi nga ko defal war nga ko changer. ca yàlla suñu mais fan la yaay ji war a dem ba ki ko sàkko dindi couche am parce que neen dañ koy couche. laa illah egg ci moom dafa dindi couche bi doo koy egg ci moom. loolu mhm. jël na benn temps donc fan la yaay ji demoon loolu jar naa laaj xool nana ak tamit li ngeen ko ko def génn kër gi dëgg la bu ñu xoolee ki nga xam ni nga xam ne ñoo nekk ci kër gi xëy na bu fekkee ay góor ñi ngi fa. loolu enquête bi mën naa bañ a sori mën naa bañ a metti man liir naa benn commentaire sax am ku ne est-ce que du papam hmm. na ma yàlla jéggal am na benn commentaire bu ma liir am ku ne lii de mën naa nekk sax baayam. pourtant ñi ngi koy wax nii de. am na am na ku wax loolu. mais jàpp naa ne ko jege moo ko def. ku jege jege saa du bari mi ngi wax loolu. en ku ko jege jege euh, moo war a def lu mel nii ndax koo xam ne dañ koy couche na na. balaa nga koy balaa nga egg ci moom di nga dindi couche bi. def li ngay def ba pare couchaat ko. Mhm. dem diggante boobu yaay ji fan la nekkoon wala yaay ji kon xëy na da doon dal bu dee heure bëccëg la mën naa am ñu def ko ko bëccëg mën naa. muy mais yenn genre maladie yi boo ko amee day mel ni ku yor doom ji ndaw rek waroo koo sàggane wala nga koy sori yenn sori yi jar na sax booy nelaw nga ñëw nelawee ci wetam. Mhm. parce que waroo ko bàyyi moom kese muy wéet ndax crise mën na ko dikkal à tout moment euh, mën mën mën na am nit te nag am na def ko lu bon yu fi nekk ñoo xam ne tey dañ naan leen dem leen ngeen tëdd koo xam ne kafe la pour am xaalis yenn ah, yenn def ko lu bon yi féticheurs yi dañ koy wax nit ñi mhm. yooyu yëpp mën naa nekk nga am doom joo xam ne mën nañoo soxla ci ci ci lu mel noonu ci moom euh, da nga war a am benn vigilance bu bu bu mat boo xamante waroo ko sori yenn sori yi yenn heures yi ba ñuy war a def ci moom lii nii te te ko yëg mën na nekk ku ne nag yàlla rek moo xam. na nekk ku ne feuse waaye doy na waar doy na waar doy na waar donc moom sax maire bi mi ngi sàkku ndimbal euh, ci xale bi li muy soxlaak mu mel ni ñoom ci seen jëmmi bopp ay néew ju doole lañu euh, te ñu yor ku feebar leneen dolleeku si ci seen kaw xam naa ne ki def lii de moom ñàkk na yërmande donc ñu ngi jaajëfal Sadou Barry euh, Penda Bey